benn waa ji ñuy wax euh, Modou Niang bokk ci Touba ca kanam ànd koog sëñ Cheikh Mbacke Cissé ñoo ñëw ci man gis ma wax ma ne ma dañoo bëgg ci garab yi. ma ne ko ñoo ko doon jox de retraité nañ waaye jiw bi moo am na Touba ni ko la fi waxee lu jiw a jeexul ma jël jiw yi jox leen ko ci ndigalu sëriñ bi ndox sëñ Sall mënu ma ko cee bañ a ñàkk a wax ndax moom. te Sa Ndigal Thioune moo ma jox ndigalu ma jox leen ko ba ma demee di ko jox it dafa ma ne ñooñee day waa Touba ci kanam dañuy liggéey sëñ Touba loolu de ànd naa moo ma jox leen ko wax dëgg yàlla barke am na ci ndax li ñu li ñu jox ëpp na ñaar fukki junniy garab yàlla na sax ci barkeb sëriñ Touba loolu laa amoon ci lu may wax ñoo ngi sant waa Touba ca kanam bu baax a baax a baax liggéey bi ñuy def wax dëgg yàlla réy na ndax ñu ndakaaru lañu ñu nekk fa la ñu féetee waaye dañ ci dañ ciy jëf suñu ñax. dañu créé pépinière bi pour pour euh, former des pépiniéristes pour Touba ca kanam am autoproduction muy tàggat fi ay xale ñoo xam ne dañ mën a saytu lépp loo xam ne matériel végétal la nga xam ne tey personnel Touba ca kanam ñoom ci biir formation bi maa leen formation pratique kon pratique bi lii moo jur lii tey. moo jur li ñoom ñoo ko def ci li ma leen jàngal donc depuis euh, rempotage des gaines ba ci semis yi ba ci entretien ba ci plantation jàngal ni lañ ko tey parce que tere nañ ko mi ngi nii tey la ca des mooy soxla woon nañu maraîchage maa ngi formé ci maraîchage bi ci lii donc loolu mooy objectif objectifu euh, pépinière bi la ca des mooy dañ ko war a décentraliser au niveau des villages de Touba nga xam ne village bu nekk mën a am une euh, une pépinière villageoise de 2000 plants par an ñu former leen parce que euh, formation bi ñu jox dañ koy démultiplier ñoom ku bëgg formation ñoo lay former bu ko defee village yooyu ku ci am sa pépinière mooy tax nga mën a sampal sa bopp garab man ko saytu moo tax des euh, déséquilibre écologique bi am Touba ci wàllu environnement ci wàllu reboisement day daal di faju li may soñu askan wi mooy askan wi déjà sensibiliser seen bopp ndax chaque fois ñi ngi def ay demande mais nun condition yi ñu tëral mooy képp koo xam ne def nga ci demande dañ lay laaj ne la dañ lay jox garab garab gratuitement mais da ngay wax protection support de protection parce que fii loo fi def bëy yàq ko ak yooyu loolu li loolu la ñu xamal askan wi te ñoom ñëpp sóobu nañ ci mais aussi ay plantation dafa am époque bu ñu koy defee léegi li ci gën tey dee soo garab yi ñu def ki ça fait quatre mois xool ni mu tollu mën na un mètre wala un mètre lu kóob léegi nag nun am nañu ay bouteilles yële mooy bouteille yu crène yi moom la ñuy transvasé defar ko boo xam ne bala ñu yegg moo d'août dana nekk un mètre wala cinquante nga xam ne koo ko jox tey euh, dana ko mën a euh, jëmbat ci taw bi mu dox. la ca des nag mooy ñii day samay mbokk yi euh, eaux et forêt mais le président de commission environnement moo nekk ni tew man moo ma nommé lii ma nekk ci sous sous commission reboisement ma yor ko. objectif bi comme ni ko bay Cheikh waxee nga xam mooy secrétaire de la commission waaye aussi moom lañ dénk. lépp lu concerné reboisement euh, dañoo bëgg Touba mu dem ba niru turam ndax ku ne xam ne ne sëñ bi Touba garab ga nekk ci àjjana la ko tuddee kon dëkk bi wartu tumranke ci wàllu garab non seulement dafa ñàkk garab te xam nañ garab njëriñ li nga xam ne dina ko apporteel euh, suñu cadre de vie te aussi Touba dafa bëri ñuy wax naan suuf si li fi mën a sax bëriwul soo gisee diversité bi yëpp nga xam ne daanaka fii la juddoo pour wane ne Euh, garab ak suuf ak ndox kenn rek mooy borom muy subhaanahu wa te foo suuf juddoo rek la fay sax war na faa mën a judd expérience boobu lañ doon doon doon développé fii donc mu doon loo xam ne su jugee fii dañ koy élargir donc parce que mënoo wax ne da ngay rebaser une grande ville comme Touba te amoo source de production mënoo dëkk ci ñaan ak jéggaani ak jënd buñ lay mayit foog tamit ngay jéem a produire. eaux et forêt ñoom euh, dañoo nekk ñoo xam ne ay autorités étatique lañ état moo leen taxawal ngir population Sénégal Touba bokk ci loolu dégg nga ñoom it ñu am ak ñoom une parfaite collaboration depuis que Touba ca kanam dugg ci mbirum environnement ak tey ci mu nekk collaboration bu rafet boo xam ne lu ñu nekk rek ñoom ñu ci. deux voies dañ koy jëmbat ñun ak ñoom ñoo ko ànd pépinière bi. ñoom indi nañ ci seen contribution semence yu bëri aussi ñoom ñoo ko jox mu nekk collaboration boo xam ne vraiment bu rafet la bu ñu buñu ñu la te ñi ngi leen di sant bu baax dañ naan ñu continuer collaboration bi askan bi dañoo war a xam ne garab dafa bokk ci suñu dund mu ñu fexe mu nekk suñu moomeel moo tax lii sëñ si Cissé doon wax tout à l'heure ci distribution bi ñu exiger leen ne leen balaa ñoo jox kenn garab da njëkk wane ne yow garab ñor na la ci nga outil protection bu aar garab bi contre les herbivores parce que tamit faw maye bi dafa war a ànd ak engagement engagement boobu nag moom mooy tax askan wi mën a toppatoo garab bi te noo xam ne ku bëgg a euh, Touba jëm ci kanam jëmbat garab da cee bokk kon ñi ngi sensibiliser buntu kër yëpp rawatina soxna yi nga xam ne ñoom la góor ñi di bàyyi ci buntu kër yi ci biir kër yi nañu soñu seen borom kër yi ku ci am moyen na nga ko jéemal sa bopp fexe nga bañ a xaar ku la may. maanaam nga fexe. nga fexe ak kenn ku ci nekk góorgóorlu na garab gii maa ko liggéeyal Serigne Touba ci suuf si Touba jëmbat ko sa buntu kër fas yéene nag di ko suuxat te xam ne njëriñ la loo xam ne day jëriñ tey ak ëllëg. yàlla dogal na nag taxawal nañ pépinière fii ci kër Gol mu dend ak poste de santé bi fi Touba ca kanam doon tabax di ci sant bu baax a baax mbooleem njabootu Gol gi nga xam ne ñëw féete fii ku ne sëñ baara puy ak sëñ adama puy ñoom ñi nga xam ne bu Touba ca kanam tàmbalee liggéey bi ak léegi ci bërëb bi jamono ju ne lu fi Touba kanam di def ñoo cay jiitu di ci jàpp ak mbooleem njaboot gi féete ci gox bi ñoo ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm pépinière bi nga xam ne taxawal nañ ko fii nag ni ko commission environnement bu Touba kanam ci njiital sëñ Moustapha Amar ak sëriñ Cheikh kan mi toftalu ci moom Baye Cheikh Cissé mi nga xam ne xam-xamam daa màcc jëm ci wàllu googu ak sëriñ Moustapha Cissé mi mu ko àndal ak waa gox bi taxawal nañ fi pépinière bu am solo boo xam ne fi mu ne mënees na koo wane mënees na ca teg bët luy tolloog 22000 garab jëmbat nañ ko fi ñaar fukki junniy garab ak ñaar bërki dem bi ñu demee ci sëñ Muntaxa di ko leeral liggéeyu Tuubaa ca kanam leeral nañ ko ko ñaar fukki junniy garab ak ñaar nag bu yàlla bu ñu yàlla dimbalee bañ tisaare ko ci biir dëkk bi dana doon lu am solo tey pépinière du taxaw ndax garab gu màgg ba àgg ci ñu war koo jëmbat boo ko génnee da fay defaat geneen bu ko defee muy dox ndax dafa bokk ci lii dimbali doomu aadama mooy environnement bu baax te environnement boo ko waxee garab a ci njëkk li tubaab yi wooye écosystème te mooy yii suñu borom composé ci kaw suuf ngir ñu ñu mën a ñoŋal dunduk suuf gi yooyee garab da cee bokk doon ci bànqaas bu ama am solo ndax ndox ak wëlbatikoom soppaxndikoom cycle de l'eau garab da cee am liggéey bu am solo bu ciy def oxygène garab dafa am liggéey bu am solo bu ciy def waaye climat bi wérgu yaramu doomu aadama yi garab dafa am liggéey bu ama am solo bu mu ciy def ba ci xayawaan naan yi te mooy euh, euh, ndundat yi rabi àll yi picc yi yooyu yëpp garab daf leen di dimbali ba seen yu nekkin mën a am dëkk boo xam ne lépp lu baax lépp lu nit di mënta ñàkk ci ak dundam borom ñaan na ko ci dëkk bi loolu yitte lees ci war a def loolu moo taxoon Cheikh Mouhamadul Mountakha joxe woon ndigal jaare woon ko ci sëñ Abibu ci ne ku ko man na nga jëmbat ak garab ñaari garab ñetti garab lim boo man sa buntu kër bu ko ñëpp masee def liñ bëgg dana am donte nag fii ci dëkk bi am na ay gisiin yoo xam ne am nañ ko ci garab ñenn ñi dañ naan day lëndëmal ñenn ñi di wax ne day indi ay yoo ñenn ñi di wax leneen ak leneen sëñ Mouhamadou Lamine Mbacke xam-xamam màcc jëm ci wàllu garab dama ko mas a dégg moo wax ne diggante garab ak yoo amuñu benn lëkkaloo ndax yoo du nen ci garab du fa dëkk kon lu tax nit ñi bëgg a def ci bopp yi ne garab fu mu bari yoo dafay bari loolu lu lu ñu xalaat la rek waaye du lu taxaw kon yooyu yëpp dafa mat a bàyyi xel njariñ li garab mën a indi léeg-léeg da nga dem ci ñi nga xam ne yàlla dogal nañu féete ci sancaan yi nga xam ne ci dëkkuwaay yi gën a sori ci dëkk bi la ñuy dëkk da nga dem ci kër goo xam ne da nga naan kër gii de benn garab gu mag bu nekkoon ci digg kër gi rek waa kër gi dañuy am jàmm dañuy am fu ñu féexloo dañuy am fu ñu mën a añee dañuy am fu ñu am dañuy am te te léeg dafay manqué kon yooyu dafa bokk ci liggéeyu Touba ci kanam yu ciy jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne jàpp nañ ci ba ñu samp fi taxawal fi wana fi loo xam ne mën naa doon départ la ca toppaat mooy li nga xam ne dugalaale nañ ko ci biir te may wax léegi ne ab tàggatu la ci Touba ca kanam te mooy ab ab toolub dër nga xam ne li ñuy wax culture maraîchage nga xam ne mbayum légume xam ngeen ne Touba daanaka amu fi wala bariwu fi daanaka amu fi li ëpp ci liñ fiy lekk dafay jóge feneen ci biir réew mi te Touba bari fi ay ndaw lool yu man a liggéey toll ci liggéey te yàlla dogal na am xëy jàppandiwut ci ñoom kon lii nga xam ne tàmbali nañ ko fi def fi ay tamaate kii soble kii kaaneeg yu ni mel ab tàggatu la nag jëm ci tool yu mag yi nga xam ne Touba ca kanam mi ngi koy mébét fas yéene koo yaatal ba ndaw ñu baree bari amum xëy waaye ba soxna suñ joxati tuuti ci weccet boo duggee ci marché bi am loo def ci sag léget ca doo ci sonn di sant mboolem ñi fi teew ñëpp di jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah